jest partii. Zarko, Zarko génn na. Euh. Alaaji Fadam naka mu. waaw mais ñu ngi nii rek Ibrahima Faye. maa ngi lay ziar di la bëgg bu baax maa ngi si jàmm. ñu ngi si jàmm bu baax a baax a baax bës. macha allah mais sañse bi démb la doo ma ko abal. waaw démb de grand bu laa woote démb xaw naa rey gars yi. <laughs> xam nga nag affaire affaire de magum géwél la quoi démb. non du démb rek nga leen xaw a rey temps yëpp yaa ngi leen di xaw a rey. non booy dama leen dàq li nga leen li nga leen di teg attanuñu ko alaaji ko non booy maa ngi leen di bëgg a allah yaa ngi may dégg bu baax. maa lay dégg bu baax. macha allah macha allah maa ngi lay nuyu di nuyu gars yi ñuy seetaan ñëpp maa ngi dégg ngay toll léegi ne nekk Canada di toll dëkk bi mais tolluñu dëkk bi affaire bi yéen yow yow niveau bi ngay yóbbu communication bi fu mu toll nii làmb gars yi amal ne la amal la bari de. gaa yi moom eh, toog rek orange mu nekk réew yi di dàqante. waaw waaw loolu nag war na mën a ñàkk. non mais loolu lu mu gëj a gis ci live bi. xam naa ni il faut ñu def benn benn nuit de orange money et de wave quoi. Mm-hmm. maa ngi nuyu bu baax gars yi nga xam ñu ngi sa live bi yëpp des fois gis ay xarit vraiment. Mm-hmm. dama leen di namm coach Bak coach kii pas Bakary Bakary moom mi ngi fi Montréal coach Jabong yaa ngi koy tudd léegi nit ku baax. Mm-hmm. du ma fàtte bi ma France macha allah il y quatre ans. tomek sama papa feebar ndeysaan mu déplacé wu jóge ville bu ville ñu seet si ma quoi jamono jojo euh, mo diggé mu tuddu ko sama yaram day do quoi da fay fatali souvenir yu bari ma lay nuyu wat bu baax. di la wax nag Fadam démb communication bi yéggal ti ngeen ko. yéggal ti ngeen diggante amu sen ak tafatin mais amu sen ak tafatin mom fa dem duma ci wax. ndax lan. parce que dafa am lu war a génn te génnagul ci ñom ñaar. ak démb lu muy tàng-tàng yëpp hmm? ak démb lu muy tàng-tàng yëpp dafa am lu war a génn te génnagul ñu jëm nag li ci muy tàng lu war a génn te waaw loolu moom laa moom la ngoom fekk nii ma jàkkaarloo nii nii mu ngi nii ci ordinateur bi nii ma jàkkaarloo waaw mu ngi nii nii moom laa jàkkaarloo non dama nii moom laay xool nii yàlla mi ñu tiim moom lay jàkkaarloo nii nii nii nii nii li war a génn te génnagul diggante Eumeu Sène ak Tapha Tine hmm? tey fu mu toll nii làmb ji Alaaji Fadam euh, dafa toll niveau boo xamante ne dafa neex ba mu ba jéggi dayoo quoi hmm. làmb ji dafa neex jamono ji parce que mbër yaa ngi commencé di wan seen bopp démb wala boog ci face à bi Eumeu Sène dafa piégé Tapha ci commencement bi dafa dafa piégé Tapha Tine. Eumeu mm-hmm. Sène dafa def loo xamante ne dafa ma fàttali sama benn xarit dañu mus a bokk classe ñu ñëw toog kooku njool tool nu ko neex. Mm-hmm. gaa yi ñëw comme gis nañ ma ma bëgg a bëri gars yi ne ma bës bëri la kii ma ne ah non non man bëri ma waaj na waaye booy ay tappat lañu booy nii ñemewuñ ma ay tappat lañu ay booy yambar yi ngeen may wax. ma toog waa ji di wax di wax di wax rek ma jékki-jékki jóg ne ko kaay taxaw mais bu ma nee kaay taxaw waa cinquante pour cent dañ na ci moom. Eumeu Sène loolu Lac de Guiers loolu la def mooy dafa mel ni dafa ragal tafaatin bugul wax kombaa bi da koy négocier jékki-jékki rek tàkk tàkk boobu mu takk nag am na lu bëri loo xamante ne créé na ko wax tafaatin dugal na tafaatin ci combat bi Eumeu Sène mettil na combat bi mais itam wane na boppam ci combat bi donc yaa ngi jëm ci combat bu metti combat boo xamante ne combat bu bu neex a neex a neex lay doon combat bi joo xamante ne ñaari mbëri yëpp jàpp nañ ni ko ñoo mën fuuf mooy xam nga problème yenn saa yi mbër dem ci bës ni naan nan naka la koy négocier mais Eumeu Sène nawloowul tafaatin ci bëre nawloowul tafaatin ci xeex nawloowul tafaatin ci doole tafaatin lijjantiwul Eumeu Sène dafa jàppi Eumeu Sène benn bébé boo xamante ne da ko war a fooye jàll moo tax làmb ji metti mooy ñaari mbër yi dañuy dañuy teg sañ-sañ bu xaat bu metti ñaari mbër yi dañuy teg lu tànk cër dinañ ko teg ci biir géew bi laa di fa dañoo dem ba ñoom ñaar mais coobante rek lañ bëgg ah ñoom ñaar dafa dafa ne man may Eumeu Sène mi toj mbapat bërig mbay juuf mbapat def lu rëy ci mbapat bërig mbay juuf aller retour arène dem drapeau chef de xaw ma fan fanati fële tournoi CEDEAO mhm. dem championnat d'Afrique boo xalaat Eumeu Sène dem na Eumeu Sène ne man nga su lay doog bu muy toll ci digg ndënd Iba Mar Diop mu dàq ma ma tëgg ko mbott mu daanu. Mm-hmm. Eumeu Sène ne man maa téye Zallo def ko ni ma ko def man maa am see capacités la en lutte. Mm-hmm. donc loolu yëpp macha allah loolu yëpp tey ñu defal ko Eumeu Sène ñëw am ko ci xam-xam am ko ci capacité moom day jàpp ni tafaatin yem ko fii ci bëri. Eumeu dafa jàpp ni tafaatin yem ko fii ci bëri te tafaatin nekk na mbër moo xamante ne tey.

kon tey Tapha dafa am lu mu bëgg tamit ci làmb te pour confirmer loolu il faut mu éliminer Eumeu Sène wan ko ne yow mi daan Balla Gaye ñaari yoon dama lay éliminer dama lay éliminer bu ko defee man parce que man il faut ma daan ci ténor yi parce que ténor yi boo xoolee saawaay kii la ci daana Bombardier la ci la ci la ci bëreel deux fois par arrêt médical donc Tapha Tine tey dafa bëgg wane boppam ci nga xamante ne ñi nga ñi nga xam ñoo yor coow li muy Balla Gaye muy Modou muy muy Eumeu Sène mm-hmm. gis nga Tapha Tine tey mu jógee ci Eumeu seen boo ko laajee kan nga gën a bëgg a bëril mm-hmm. la lay wax hmm? Modou Lo la lay wax Tapha Tine bu paree ci Eumeu Sène nga laaj ko kan nga gën a bëgg bëril sa carrière mu ne la Modou Lo mu jógee ci Modou Lo nag après mu jëliwaat Balla Gaye 2 bàll Balla Gaye 2 ne woon bàyyi naa bëri sax day ñëw neexal ko ne dagg leen ci sama cachet jox ko Balla Gaye mu ñëw ma noggatu ko mu soog a jël carrière mu soog a jël retraite Tapha Tine tànk que amul ndam ci Balla Gaye 2 Eumeu Sène Modou bu tëddee du nelaw parce que dafa bokk ak ñoom génération ñoo ñooñu am benn riir am benn coow. Mhm. mu def recul ñëwaat xam ni moom la mooy mbëru Bawal day duy lu mot sëkk ci stade bi am na doole entraîné na mel na ni mu war a mel léegi day bëgg a wane boppam. Mhm. bu carrière am jeexee te taanul Balla Gaye daanul Modou Lô daanul seen xol bi du sedd. Mhm. kum ci bëreel dina la wax luy tàkk te du fay. mais tamit ni mu def démb ëmb seen ërtël ko mayu ko dara. Fadam dama ne déggu ko dara li ma jàkkaarlool ñii Fadam déggu dara. li ma jàkkaarlool ñi nii Fadam déggu ko dara maa ngi deux heures de temps. maa ngi maa ngi deux heures de temps Fadam deux heures de temps mu ngi nii ma jàkkaarlool deux heures de vidéo. pour Tapha Tine ak Eumeu yëpp. une heure bi ama Eumeu Sène une heure de temps Eumeu Sène une heure de laa jàkkaarloo nii fu mu toll a alaaji Fadam moo tax ma ne waaw ah, day dépendre ci Baye Ndiaye parce que planning bi yeewu na bu baax a baax a baax et puis combat bi beneen affaire et puis alaaji Fadam da wax boo waxoon keroog maa ngi la koy wax ci sa live di ne nit dina yot cinq cent millions bëgg bokk ci cool yi mu tëb Alors, mm-hmm. on part sur des moments décisifs. bu ma sa téléphone mais tey innovation bu mag a mag a mag fadam innovation ci ñaari semaine yi ñu jëm le vingt neuf octobre xaaral vingt neuf octobre lay tàmbali ci Fouta Production xaaral innovation bu mag ci cadre làmb te du yem foofu du yem foofu fadam ak fan Eumeu Sène Tapha Tine gis nga fusion bi dafa garaaw fusion bi ñu doon wax fusion bi dafa garaaw lu doy waar lu waar waar euh, Euh, alaaji makan meng daf fi nekkoon di lëmbe di toj lu ko neex mu def mu yëngal mais alaaji makan meng fi mu toll il a de la concurrence Baye Ndiaye bu gën a tëgg làmb depuis Boy Niang ak Lac de guerre numéro 2 c' était en juillet 2019 lim Nicolas gëj na tëgg làmb depuis avril 2019 diggante Gris 2 ak Reug mm-hmm. dem ba jamono ji fu mu toll nii ko lay takk ci lipp Baye Ndiaye takk ci lipp ñu taxaw te boo xoolee boo amee benn jàngat Luc dafa ñëw yëngal face à face bi Baye Ndiaye bëgg wane itam ni moom day yëngal Baye Ndiaye ñëw yëngal à façon ku ci nekk ak façon bi ngay organiser événement kon fusion bi mujjee am ci làmb nii am na coow lu mu créé waat ci làmb xaaral makan meng ñëw làbbali lu doy waar ci kanam moo tax Luc Nicolaï waajal boppam balaa muy jeexal 5 novembre am na lu mu denc. Mm-hmm. muy aada Fass guy gi ba pare ne leen bii mooy gën a garaaw Balla Gaye Modou Lo mooy lim ñu ko laay calculer na ba calculer na ni que perte na Modou Lo parce que Modou day dem bëri jëg Boy Niang perte na Ama Baldé Ama Baldé day dem bëri jëg Gris Bordeaux mm-hmm. mu am lu mu jël pour bokk ci coow li muy Ada Fass guy gi fas yéene ko yóbbu mois de avril wala mois de mai. mais man li sama problème balaa ñu dugg foofu war lu ma jaaxal démb. combat Eumeu Sène ñëw mel ni ku ne làmb ji dernière signature la. Tapha Tine ñoom ñaar ñëpp. ñëw mel ni ku ne làmb ji dernière signature la. Tapha Tine mais Fadam nee na ñii Tapha Tine bu boo koy laaj ci Eumeu Sène sax danaa la ñii. Hmm. làkk ay anglais ne la ñii ñoom ñëpp lay duma. waaw ne ko yu xaw ma nu mu koy waxee de ne ko yu finish. la ilaha illallah yu finish mais Eumeu Sène dama ne la Eumeu Sène ak Tapha Tine ji. ku yeboo journaliste nitu làmb yu bésu làmb ji nan leen sori décision bu ñu ñëwee ci làmb ji caméraman bu leen bu leen jege mën na la dóor ku mais alaaji fadam hmm. Eumeu Sène ak Tapha Tine c'est le 12 novembre hmm, hmm.